wa taslima mbokk yi nga xam ne ñooy ñuy seetaan ci seen site bi di Bambey TV maa ngi leen di nuyu bu baax la ziyaara bu baax ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di am mbégte baax ci jataay bi nga xam ne dañoo ñëwoon tey jii ci kër suñu wóllare sëñ Aliou Ngom muy maam Thierno dem ni moom di ko nuyu bu baax ñaanal ci moom nuyoo monsieur le maire di sama turam ñoo ngi leen di sant di leen ziara bu baax te mbokk yi ñëw fi nag ñooy sàkku ci ñun ay kaddu xam naa mu nekk kaddu yu gàtt waaye yàlla yàlla nangu ko te te gërëm ko te jugal ko muy kaddu yoo xam day jël ci sëriñ bi rek ndax ñun moom suñu benn benn numéro la am ñu ñu sëriñ bi fi ñu demee moom la ñuy sëriñ bi nag moom mooy lépp yonent bi alayhi salaatu salaam ndax léppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo euh, koo xam ne it dafa am lu mu ci nga naan jëm ni ak jullit wala nga naan jëm ni ab taalibe waaye li ñuy tudde humanité dafa am lu mu def rawatina li ñuy tudde jar gi euh, taxawaay bu Sëriñ Tuubaa taxaw nga xam ne dàq na ak noteel dak ak leer dak ak tayal ci der bu nek euh, nekk koo xam ne bu ñu toppoon am njàngaleem ak ay doxalinam danañu am réussite total kon bu boobaa duutuñu top ci ginnaw nasaraan bi nasaraan bi mooy top suñu ginnaw ndax loolu alquran mo wax ni tedd nga ñeel na yalla ak yonenteem ak way gem yi kon lepp gi ci way way loolu delu day wat ci loolu waye nak euh, taxaluf bi am muy delu ginnaw gi am ci ci ci ci jullit ñi wala delloo ginnaaw bi am ci àdduna bi eh, la ci ëpp mooy ñàkk xam nit ki yan valeur la war a sàmm yan valeur la war a sàmm ci boppam ak wan doxin la war am sëriñ bi nag bi mu loolu la jëkk def xam ngeen ne eh, ni mu occupé espace bi nii ci côté bu nekk mënoon na tey borom xam-xam mu am fa wàll ba noppi geneen wàll ga du fa du fa du fa dox waaye même ñaari pouvoir yi am yëpp muy pouvoir temporel ak spirituel jëmmi sëñ bi ci boppam fu ñu nekk dafa am nu mu fa doxe bu dee ci adduna bi xam ngeen ne demoon na ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon mbuur yeeg chef de canton yeeg dammeel yeeg jaraaf yeeg ñëpp di jébbalu si ci taxul mu sensé méthode bu ñu yoroon ak doxalin yu ñi nga xam ne it ay borom yu xam-xam la yoon nekkoon nit bu baax ñenn ñi nekk sax ay surafa nekk ñu nekk ñu sell ñu ragal yàlla nekk borom yi xam-xam wëlbatiku jël seenu nos jox ko loolu mooy lim xàlloon ba tey jii mën nga xam ne nim mel ci àdduna bi ci borom xam-xam yi mel ko ci àdduna bi doomu aadama yi xam ko ci te mësta déraper mësta wàcc mukk yoon yu nga xam ne mën nga ko boromam xàlloon ñu wane sa siraatal mustaqiman fattabi'u mu jaar ci yoonu jub rek mu féete woo wéetal yàlla di ko jaamu ci ay guddi ak i bëccëgam ak liggéey yonent bi alayhi am lenn lu muy bëgg musta am lenn lu muy jublu dara ci àdduna tey même boo gisee fi ne tey ñi xamul dañuy jàpp ne bu ne murid yi tey misaal sax ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaayante wala murid yi ñu ngi jël alal di jox sëñ bi wala murid yi ñu ngi daw jël seeni bakkan di jox sëñ bi ki xamul day jàpp ne jëmmi yoon wi mooy doxee noonu déedéet waaye sëñ Tuubaa dafa woonoon lépp ginnaaw mës ta bëgg alal ay poos mës ta denc benn benn benn lu ndàmb lu mu asaam trésor bu mu asaam la mu cay denc mooy alxuraan kay te te comme suñu borom nee na ku ma nekkal ma nekkal la moom mu nekkal yàlla yàlla fay ko nag fayee ko jaam ñi nit ñi daw jëm ci moom fëx jël seeni alal jël seeni lépp daw daw jëlee ko ci moom loolu la muy tegtale mooy nekkal gi nekkaloon suñu borom loolu nag nit ku ñu man nga caa jàngee lu bari mën nañoo dem ba avancé ci parce que tey jii bu mu xooloon sëñ bi rek bu doon ci ñi séqaloon seqaloon tey muy nasaraan bi bu dee ci biir Afrique wala ci biir Sénégal tey jii ñaata dëkk nga fi mën a wàññi yoo xam ne ay murit ñoo ko gor sëñ bii leen fa yabaloon bu dee ci développement xool ci bu dee ci éducation xoola fan ci taxawee lu ci nekk loolu li muy tekk la mooy tey jii ñooñu mu doon jëflanteel ay jeexintal lañ am tey man seen seen jeexintal yi mooy ay tabax yu màggat wala nang mais sëñ bi ay nit la tabax defar leen fu ñu doon bañ diine jolli fa tey jumaa nekk fa wala jàkk nekk fa daara alfa nekk noonu mu defaree ay nit formé leen tey nga mën a liggéey sa alal mu leew la dom nga mën koo joxe boole koog du jooy loolu te bu njëkk alal la taxoon nit rayante alal la taxoon nit ñi di bañante nga mën a jël li nga amul as tuut nga mën koo joxe ba noppi di jooy lu tax nga jooy mooy xeeb gi nga xeeb da nga joxe yëg ko loolu defarul sa bakkan a tax ak defarul sa sa jikko looloo tax nga mën koo def kon looloo tax Serigne Touba nag ñun ñu ko yaakaar jàpp ko nu bañ a gestu bañ a gestu sëñ bi moom euh, ki ko xamul ak kim jëflantiir kooku rek a koy dégg waaye ku ko xam te mus ko mu gestu la nga xam ne sëñ bi ci boppam mooy sëñ bi waaw ah, loolu nag ñi ci nekk nag loolu wér ci ñoom kenn mënu leen cee dëpp kenn mënu leen a kenn mënu leen a dëpp ci dara ci jàpp gi ñu jàpp sëñ Tuubaa ndax loolu sëñ bi da leen cee woon lu wóor woon leen ci boppam ndax xam ngeen ne ñaata mag boroom xam-xama ñaata mag ñoo am xam-xam am mbooloo am barke fay boole lépp bàyyi dem dem ci ginnaaw sëñ Tuubaa takk seen digg di liggéey sàkk ngërëmu yàlla ngërëm lool tey ji mën nga xam gox boo dem boo ko demee nga faa xam ñoo xam ne seen i maam ñoo nekkoon chef de canton nangam yi wala seen i maam ñoo nekkoon buur sangam wala nangam tey jii mag ña fa bàyyi woon loola dem joxe seen bopp Sëñ Tuubaa tey jii sëtiñee ñooy jëmbalu ci ñii te te bu dee barke adduna duñ leen ko ëppale bu leen noflaay ñoo leen ko ëppale ndax am koo xam ne bala ngay falu ci nit nga koy jëlee wala bala ngay falu am na ñoo xam ne ci ay bal lañ koy andi te yow li la fal mooy foo toog mbooloo li jël seen alal di sukk di raam di la jox di xool ci yow yàlla te yaakaar jooju du mm-hmm. mooy defar bi Sëñ Tuubaa mën loolu nag kon euh, fu waay man a bàyyi ko daal nañ xam ne lu bees moom kenn mënu fi indi lu bees bañ jëm la parce que bu dee diine ngay jaay diine moom sëñ Tuubaa léppam diine bextu siwal islaam bil islaam bootu xayri min bila mana bextu siwal ilaahi bil ilaahi sa wax saana sirri an nabi min fi am léegi kon bu dee diine moom diine ko jaraloon génn ay këram diine ko jaraloon bàyyi njabootam musul am benn fréquentation boo xam ne bakkan lay doon wala bànneex wala neex lu mos doon rek da koy woon gënaaw jëm ci yàlla kon dama da jàpp ne ku jàpp ne ñoom doxin bi ñuy dox wala mag ñi dañoo xamutoon yow yaay ki xamul kon nag nan gën a jàpp ci sëñ bi rek ba a gestu benn baatit moo fi am mooy loo xam ne ñu nekk États-Unis amuñu ko ñu nekk feneen amu ko ba ci Sénégal kenn amu mooy lan baat ndigal te ne tey même boo nekkee njiitu réew am na ku nekk sa wet di la xaar pour bëgg a jël li nga yor boo nekkee maire am na ko taxaw sa bëgg a jël li nga yor mais sëñ Tuubaa ngay gis sëñ ku toog jataayam ki sës ci moom fàtte boppam gis benn jataay am benn bang am benn ndigal fi ne tey mboolem ñu bokk yoon wi benn baat la ñuy dégg mu tax bu ne def ñu def ne bàyyi la ñu def ñu xam nga jooju doole fi ne xamuloo benn pouvoir bu am loolu maanaam bu am doole ju toll ji Cheikh Mamadou mu tax am comité boo xam ne ay ay milliards lañ mën a liggéey comité boo xam ne ay millions ngi nit lañ mais benn baat la ñuy dégg maanaam bu bu nee def leen ñu def bu nee bàyyi la ñu bàyyi mm-hmm. loolu moom ku xalaat te am calcul xam ne ba adduna sosoo ba léegi ni ci yàlla fayee sëñ Tuubaa kenn mësu ko am mm-hmm. kenn mës ta dégg ñu ne rakk seen jiw jee moo moo waroon a toog opposé nangam déedéet déedéet fi ne koo wax da nga naan ci ndigalul luy dox ci yoon da ngay dégg ñu ne ci ndigalul Cheikh Mouhamadul tax mm-hmm. waaw nga xam ne lu mu ne def leen ñu def lu mu ne bàyyi leen ñu bàyyi kon loolu li muy jàngale mooy waxoon naa ko fi bi bu leen woon dee leen dañuy dee moom la ñuy moom lañ xam moom lañ am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 sa yoon nekku ci ku dib murit neel teg te déglu sëñ am na solo rahim ñoo ngi mbokki bu baax di siyaare bi di ñaan suñu borom gën ñoo defal ndimbal ak tawféex kaddu yi nga xam kaddu yu lay doon du kaddu yi kaddu yu lay doon du weesu kaddu yi e cant cant gi nag bi ci jiitu mooy di ko jëmee ci sëñ Ganna Messere Maxtaar mu baax mi nga xam ne jëmmam ëpp nañ dikkam fii fi noonu bu doon luy jaay amuñu njëgam bu fekkoon luy lay nañ ak rek la may ma ci jëmmam mi loo xam ne mboole mu la rem yu tedd yu baax yi mu hamne yëpp ba ci sëñ daaru jéy mu baax mi nga may ma ci jëmmam loo xam ne mu may ko bindeef ci muy melni li lu ko bet la way def ñu nangul kon ñu ngi sant bu baax di siaré monsieur le maire mi mam Thierno Diouf nga xam mom ñu bari xam nañ ci def bi sama digënté mom. ngir ak talibem ak mbaxam ak bëggum lu baax di siaré monsieur le maire ganna mbay momit ni borom daru mel ak man rek lañu mel té lepp ci borom daru mi sax la awe Momit pratik pratiquement seq nañu lo xamné ne na borom daru. mi ni si réew na mu seq ko ci dëkk bi duñu umpanté ci dara wax dëgg na sëñ Daaru maa ngi lay sant di la gërëm di siyaar bokki taalibe yi fi ñëwoon tertu si sëñ Ganna Messere Maxtaar di siyaare site bi nag Bambey TV ni ko suñ genn waxe doy na sëkk jaratu ñu ci teg da ñoo ngi ñaan fépp fu ñuy dégg télé ci àddina yàlla na fa àgg waaw ñu yokk mbokki jullit yi seen mbokk Ganna Messere maa ngi ñu di ànd ak yéen ci Bambey TV Euh, di ko di leen ñaanal nag yàlla jàppale leen ba ngeen egg ci chaîne yi gën a màgg ci àdduna bi euh, suñu borom taxawu leen te dëgëral leen moo ngi bég bu baax ci liggéey bi professionnalisme bi nga xam ne yéen a ngi koy doxee ci ci liggéey bi yàlla na yàlla jàppale leen kon nag Bambey TV ca kanam